Touba Taïf Karo nekk fii ci Grand Yoff en face hôpital CTO Taïf Karo nag Jibi Bamba mooy gérant bi ah mbokk yi Touba Taïf Karo nag kenn dootu leen ko présenté ci biir réew mi lépp loo doon wër ci wàllu karo yu baax gaawal gaaw ñëw ci suñu biir place bi di Touba Taïf Karo nga mën fi fekk ay karo italien karo espagnol wala karo indien ngeen mën fi fekk ay karo poli 1 mètre 20 pour seen ay salon wala salle de conférence ngeen mën fi fekk ay karo décoration yu amul fenn ay karo faïence pour seen ay cuisine wala seen toilette ay grès poli 60 60 ay plainte wala ay baguette ba ci ay karo Mbàkke lépp am na ci biir Taïf Karo ay karo espagnol 60 60 wala 40 40 marche escalier wala contre marche ah mbokk yi lépp loo soxla ci wàllu matériel sanitaire gaawal gaaw ñëw fii ci Taïf Karo li ci gën a neex mooy Taïf Karo defal client yi promo boo jëndee karo yooyu dem ci kër gi yépp fii ci Taïf Karo nee naa la matérielu sanitaire ñoo la koy offrir defal la ko cadeau muy 16 anglaise lavabo ba ci lépp luy taaral salle de bain waa Taïf Karo dañ la koy may kër gi nekk niveau un niveau deux wala niveau trois Taïf Karo nag am nañ beneen place bu nekk fii ci Cambérène ah sama mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi am seen i fii ci Sénégal bëgg a karole seen kër ba mu mucc ayib adresse bi fii dong la ci Touba Taïf Karo gaawal jël suñu numéro téléphone 77 745 76 88 wala 76 923 33 85 ak Touba Taïf Karo. ñooy number one ci wàllu jaay karaw ci mbokkee xarit yi ñoo ngi amaat mbégte ak contentement bu baax a baax jana ngeen ci site bu mag bi di Lutte Motivation di nuyu ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci loolu hôpital yi di leen ñaanal li nga xamante ne mooy gudd fan ak wér ak wér la également tamit di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw di leen ñaanal li nga xamante ne mooy liberté waaye di ñaanal réew mi jàmm waaye mbokk yi tey nag maa ngi toog ak le grand reporter muy Baye Balla Mboup Nek ci lamb di liggey lu am solo ci lamb borom Bantamba TV tay mom lañ set ci fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamantene moy lamb ak actualité dama koy bàyyi mu nuyu gene bu ko defee ñu woy li nga xamantene moy mooy waxtaan bi bàyyi ngi ziar. euh yalla yalla nangu ziar Khalil ma ngi lay fay bu baakha a baax ah, di nuyu rew mi di nuyu biti rew di nuyu kep ko xamantene ya nga nuyu setan travers lutte motivation di nuyu mbok internet yi ah di ñaan jàmm ci réew mi hmm, ci barke Cheikhul Khadim yàlla nu yàlla boole defal jàmm waaw defal ko jullit yëpp waaw ñi tëdd tawat ak ñiy dox te tawat waaw moo xam bu nu yëg bu nu yëgul bu nu xam ak bu nu xamul. dal na ko yàlla saafara ndax yàlla mooy docteur bu mag bi ci àdduna bi. benn jàngoro jaaxalu ko jàngoro bi la jaaxal jaaxalul yàlla suñu borom mooy may wér mooy tege feebar yàlla nañu yàlla suñu borom may wér ak wérle te teggil ñu bépp jàngoro bu nekk suñu yaram bu ñu yëg bu ñu yëgul wax ne tey am naa mbégte tey recevoir la fii ci suma suma kër ah fii ci suma koono fi nga xamante ni mooy ginnaaw raay mm-hmm. ah di nuy waa ginnaaw raay yëpp di nuy le premier magistrat de la commune de ginnaaw sud di nuyu aussi le premier magistrat de la de la commune de Guinaw Rail mm-hmm. ah di nuyu sëñ Mourou Mahfous Mbacké. waaw mm-hmm. ah, suma xarit. Mm-hmm. suma sëriñ di nit ku baax sëñ Mourou Mahfous moom sëñ moom sëñ Mourou Matar. waaw sëñ Mourou ma sëñ Mourou Matar Cheikh Aw Balla Cheikh Aw Balla Thierno. waaw Thierno Cheikh Ahmadou Bamba Khadim sol maa koy nuyu ma nga ca HLM Grand Diourbel di nuyu Cheikh Ahmadou Kram Mbacké Noreyni waaw. di sunu papa di sunu xarit di sunu serigne di sunu lepp borom diwaanu sil xel jawaari fi akhbari sayairi muy mouvement mondial pour l'unicité de Dieu ah non la la nuyo non la nuyo réew mi ah, di nuyu tamit les sénégalais de la diaspora aussi nga xamanteni ñom lamb mm-hmm. ah ñom da bokku na ci li leen di wetti di ca fanu ne di leen ñaanal fépp fu doomu Sénégal nek rek partout dans le monde dana mm-hmm. fi yalla defal jamm ak xewul machallah mm-hmm. tay ji mo la laajee lamb neexna lan nga may wax non lamb boy plus que neex mais mm-hmm. lamb ciosan la mm-hmm. lamb culture la bla nga xam lamb neex na mm-hmm. way nga dugg ci biir arène nationale ñaari ndanan di beuri ah barki demb euma sen setup sambu khayan bi ak Sa Thiès xale bi nga xamanteni ni dafa juddu fek ngemb li ci biir kër gi mais boy bes bobu ci arène nationale bi la la fek lamb bu neexul bo dotul neex mudlo Lo Ama Baldé fan la la fek mudlo Lo Boy Niang fan la la fek Sa ties Reug Reug fan la la fek lis Ndiago Pokola balde barki demb fan la la fek yusu Ndour han Mor Kankang Yusundu Talfa han mais Prince mo bokk na ci xalé yi mujjee ñëw yëngal na lamb ji han job 2 borom mais booy boobu mu ngi yëngal te bi mu ñëwee léegi yàggul. booy làmb dafa neex làmb culture la ñoo ko moom jéggaane wuñ ko fen mm-hmm. booy xoolal samedi. Mm-hmm. dimanche mm-hmm. mercredi lépp ci biir arène nationale. lamb di fa am nga ñëw fekk fa ndaanaan yi ne fa surtout ndaanaanu géwal yi mm-hmm. boo ñëwee fekk fa ajaratu ndiku cuun wala nga fekk fa Moussa Diouf fu mu way Yves Niantang yaa ngi koy gis ci lamb ji loolu mooy culture mm-hmm. kat bi way tëggkat bi tëgg waa kër Papa Seck yi mm-hmm. ah wala nga gis léeg-léeg Pekaay Mbay wala Jiri sekk booy bi tëggal Siteu ah lamb cosaan kase la wala nga gis la grand reporter sunu doyen di As Bekaay Mbay toog ci plateau 2STV la télévision autrement wala plateau Bantamba TV di reporter lamb da ngay xam ne lii non dafa neex. Mm-hmm. am na solo li nga xamante ne mooy waxtaan mais ba tey dañuy woy li nga xamante ne mooy mbir mi mais gis nañ combat yu spécial am na muy si diggante ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux ak Ama Balde waaye Zos ak ki nga xamante ne mooy Liss Ndiago Ada ak ki nga xamante ne mooy Guy gi tey dañuy ñëw ci ki nga xamante ne mooy Ama Balde nan nga gisee li nga xamante ne mooy open press bi. mais Ama déggoo booy naan ko Ama yaa yëngal Pikine mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. mais ama booy open press bi sax ma ni 17 heures fekk na open press bi clôturé stade bi fes del waaw booy moom moo mel noonu moom moo tollu noonu waaw ama dama naan public moom jaaxalu ko quoi waaw parce que axlu làmb ñoo ko bëgg du Pikine rek de ama boo génnee ci yeneen gox goxaat yi am na ay am na fa ay supporters mm-hmm. ñu bëgg ko parce que ni muy ñëwee ci làmb la Hmm? ama day ñëw ci làmb dafay bàkk mu neex day tuus mu neex maanaam day làmb hmm. da ngay xam ni booy bi hmm. deretu mbër moo nekk ci yaram bi waaw moo tax public jaaxalu ko xam nga ki def nii tey ji euh, Stade Alassane Djigo clôturé ko mu dimanche booy loolu safuta wax booy bi day day duy arène bi de keroog open bu mu dugg see ban yëg-yëg nga am en tant que reporter dama xam ni champion ñëw na dama xam ni Ama Baldé dafa décidé ci combat bi bi ma ko gisee bi mu ñëwee ama amul sax temps wu mhm. ah temps wu wax mhm. boo xoolee face à la presse bi bi muy jàkkaarloog presse bi mhm. wax ji sax bariwul waaw ah, ba nga xam ni kii dafa décidé waaw bi mu ñëwee da ngay gis ni kii dafa athlète ci combat bi dafa pare waaw ah, moo tax bon combat bi daal gëm naa ne Ama balde dafa pare physiquement ci combat bi li ko waral mooy xam na ni moom combat bi combat capital la ci moom li ko waral mooy dan la jox du xarañ loo nga échec donte ne Ama Baldé bul fàtte ne def na ay performance yu doy waar ci làmb parce que bon stade Demba Diop ak digganteem ak Malick Niang bés boobu doot ñu ko fàtte te boobu Malick Niang moo nekkoon favori bi mm-hmm. Ama Baldé dugal nañ ko ci tournoi TNT tournoi TNT bi ay champion ñoo fa daje guy gee fa newoon mm-hmm. Zos moo fa newoon Tapha moo fa newoon mm-hmm. mu ñëw génn fa ak 9 point yàgg na def ay performance Ama Baldé yàgg naa ñëw ci bés yu mag mais bii nag day wute ak yooyu parce que bii Ama Baldé dafa soxla relancer waat. waa ñëwaat bokkaat a 100 pour cent ci làmb. Mhm. parce que mënoo échec ci contre Modou mhm. ba pare ñëw bëgg a échec ci Gris Bordeaux loolu baaxul ci Ama Baldé. de fait que ki nga xamante ne mooy euh, Boy Niang ñëw Eumeu Sène ñëw sook ñëw ki nga xamante ni tamit mooy Papay Boy Niang ñëw teew. waa Mansour mhm. Ama di bëre combat bu spécial. am ci lu mu jugee si diggante mag Modou Lo muy defet wara a war wu. ñi nga xamante ni teew nañ fa loolu est que newul tamit beneen charge boo xamante ni ci kaw Ama Baldé. mais loolu mooy Pikine. Mhm. Pikine loolu lañ leen xamee woon. Mhm. Pikine te saa bu nu defee noonu mobilisation boobu ñu def. Mhm. nga ñëw gis père Mansour Diop. gis père Dégol. gis Eumeu Sène. gis Boy Niang gis Sok et tant d'autres Jules Baldé baayam nekk ci ginnaawam. mais loolu mooy Pikine. pikin saa bu ñu defee noonu. Mhm. saa bu ñu defee noonu ku ñu dajeel ñoo la man mhm. waaw sànq lañ sax bu ñu booloo wat weer. waaw c'est l'union qui fait la force. Mhm. waaw Sokh indi xam-xamam. indi xam-xamam. Boy indi xam-xamam Dégol. indi xam-xamam. ah ma père Mansour Diop jóge na ba Italie ngir combat bi. ah parce que alburax ñoom ñoo ko ñoo ko indi ci combat bi. ah mu ñëw soutenir doomam. Ama Balde xam nga loolu mooy Pikine waaw lii lañu lii lañu xam ci waa Pikine lii lañ leen xamee mooy ànd bokk ndey bokk baay ku ci xewle Pikine gépp génn ñëw jàppale sa moroom parce que Pikine ba pare Pikine combat capital dañ ko mën de soxla bés mm-hmm. ñu mobiliser wu mm-hmm. bu nu amee combat capital mobiliser laa la wax de ñoom ñëpp ñu génn pour am ndam ci bis boobu mm-hmm. yàlla mën na leen suturaal mbër mi lan la ci war a jàngat lim ci war a jàngat comme gis ñi fa teew waaw mooy mooy li ma la wax rek mooy lim ci war a jàngat bari na. lim ci war a jàngat mooy mbër mi. amatul amatul droit déglu kenn. dafa war a jàppante ak ay frères ay frères am aussi jàppante ak ak moom. comprendre nga. ñu moytu ñu moytu ñu moytu eh, moytul diw moytul diw moytul diw danga am combat capital nga am ki yéene wu la kee yéene wu la non loolu feeg yaa ngi koy dégg waaw pour man doo gaaw a sa carrière du gaaw a avancé daal. ok parce que bul jël bul jàpp ni yow képp koo xamante ni tey dañ la koy moytuloo rek sa bañ la. déedéet. lamb moom moo am kii concurrence concurrence yàgg na ci lamb. muy ci milieu promoteur bi. Mm-hmm. ah muy ci manager bi. Mm-hmm. Ah, muy ci ci ba ci mbër mi. concurrence yàgg na ci mbër parce que ay kuy la yoo xamante ni dañoo bokk mbalka. du mën a du mën a ñàkk ba pare boo koy adversaire mhm. comprendre nga maanaam gaa yi dañu war a rafetal diggante yi waaw bu ñu ko defee rek mhm. su nu borom mën na leen a dimbali ama li mu mën a jàng ci lii barki démb bu bari na xam nga ay xam ne ay frère am ñëw nañ soutenir ko ci bis bi te nii nu ñëwee keroog ci open press bi man gëm naa ne noonu la ñuy ñëwee ci bisu làmb ji mhm. parce que Pikine moo soxla parce que Ama Baldé moom moo soxla combat bii nii donc li mu ci mën a jàng bari na mm. gis Ama bu athlète Ama boo xamante ne daw na def cent mètres daw na fecc état physique gu Ama Baldé nan nga ko gis. mais déggoo ma ne la Ama physiquement dafa pare. Mm-hmm. moralement dafa pare mentalement. Mm-hmm. dafa pare. Mm-hmm. Ama Baldé lii gën a doy waar ci moom mooy du du du ragal mbër warta ragal. ok ah, am looy sóoraale si sa si sa adversaire. mbër mu ko ciy def bu lay boo tekki sa ngem. te xam ni doo gaaw a dégg daali ci làmb. Ama affronté na mbër mu ne. mais est-ce que Ama Baldé ñi mu doon affronter ak ki mu wara affronter affronté ben la parce que Gris la lay wax. Wa il est le troisième tigre de face. le bordelais le bordelais. Mhm. Wa Gris Bordeaux boo face Fass combat yi mu soxla won yu ci bëri dal leen ko indil. Mhm. ah victoire yi mu soxla won de Bordeaux contre euh, Bombardier. Mhm. ah bés bobu lamb dootu ko fàtte Bombardier bobu mo moo nekkoon favori bi. ngir Bordeaux ñu ñu ñu ne ko bul jël combat bi bataay mu ne da jël. ah parce que dafa togon ci lu wuur bobu mu ñew réussir combat bobu ngir Bordeaux nekk mbër moo xamante ni dafa am experience ci lamb. beuri nga ak Bombardier. beuri nga ak balagay numéro 2. yagul dara ci arène nationale bi. mais état bobu mu indi won contre balagay numéro 2 bis bu ko indi contre. contre Ama Balde. Hmm. Ama Balde daan ko ba romb ko. moom Gris moom Gris Bordeaux état bi mu indi. contre Balla Gaye contre Balla Gaye numéro 2. bi passé bu ko indee contre. Ama Balde Ama Balde daan ko ba jéggi ko. bon fi may waxee géew mooy boo xoolee expérience face à la jeunesse la. Hmm. ñaari ndaanaan ay bëri mais Gris dafa jiitoo Ama Balde ci làmb lu bari. waaw boo xoolee 2004 2004 bi am bi bi Gris di bëri Eumeu Sène hmm. ah. boobu Ama Baldé dugg seegul ci làmb. 2004. Mhm. Gris am expérience ci làmb. Mhm. bëri mu du xarañ loo. Mhm. ah bëri yeneen i champion. def ay performance ci làmb. Gris Bordeaux tey Fass dañ ko ëmboon indi ko pour mu doon roi des arènes. ñëw tabb ko def ko troisième tigre de Fass mais yàlla dogalul tey jii Gris Bordeaux nekk roi des arènes. mais am na ci bés yoo xamante ni Gris Bordeaux. gañe na ko indil ko waa Fass te waa Fass ñu fàtte bés yooyu parce que bés yooyu dafa nekkoon bés yoo xamante ni xëccoo la woon. entre Pikine et Fass ak yeneen ak yeneen bi mu njëkk a daje ak Eumeu depuis 2009 nag ah Eumeu waa dafa dafa fayu. dafa fayu bëreeg moom xeex ak moom daan ko ci la ko Gris jàppee door ko ba fii teppeeku mais dara Eumeu gaynde la. Mm-hmm. ah ñëw affronté Gris Bordeaux indi ndam li waa Pikine loolu mooy làmb. enjeu combat bi lan la. enjeu bi. Mm-hmm. waaw enjeu bi man euh, ci ni ma ko ci ni ma ko gisee. mooy Ama Baldé warul am dara lu muy sóor ci Gris Bordeaux Ama waru am dara lu muy ci Gris Bordeaux parce que bu fekkee da am Gris ku mel ni Gris Bordeaux tey wala ku mel ni Bombardier booy bëri ak am looy sóor ci ñoom. bu boobu bàyyi bul demee saat boo demee da ngay tëdd. waaw Ama ko xam-xam ni attaquant la ndox du bàyyi yoonam. day ñëw. te Gris Bordeaux daf ko teel a wax ne. sa pied droit bi ngay teg dafa ma arranger mais Ama Baldé nee na ko man dama mën a pied gauche dama mën a pied droit deux pieds là sama deux pieds yëpp dañuy wax mais est-ce que Ama Balde war na am lu muy sóor ci Gris Bordeaux. Ama war naa mën a dëkk ku Gris xaw ma ndax dana ko da koy moytu. mais boo jéemee moytu. man ci li ci sama xalaat. boo jéemee moytu dara ci Gris Bordeaux. Gris Bordeaux mën na laa daan ba jéggi la. lan ngay moytu bu dee ku Gris Bordeaux pour nga jàpp Gris Bordeaux. am li nga soxla. boo ko moytoo mën mën mën ah mën na laa nax de. ok li ma gis mooy jéem a encaissé ku Gris Bordeaux. jàpp def li nga bëgg a def. waaw dem jàpp def li nga bëgg a def taxul sax nga encaissé kii wu Gris mais bul sóoraale ni yow à tout moment mën ngaa jël kii wu Gris Bordeaux. te bañ ko ragal. ah Gris du mbër mu nuy ragal bañ ko sóoraale. bañ a jàppante ak Gris Bordeaux jàppante jàpp ngemb Gris Bordeaux jàpp ngemb. ah loolu baaxul ci Ama Balde. wala Gris Bordeaux jàpp tee yow amoo jàpp loo. baaxul ci Ama Balde yooyu yëpp Ama Balde def ko war a sóoraale. comprendre nga. Mhm. waaw Gris Bordeaux. Mhm. te gisuf gu fi benn mbër. wala benn adversaire boo xamante ni daan na Gris Bordeaux ci ay secondes wala ci ay minutes. Mhm. goo ko. lu gaaw. man de boo man gisaguma ko. ngir combat am yu bari day xaw a durer. yii dinañ cinq minutes dina dem wala yii dinañ génn premier cinq minutes yi. donc Ama Baldé li war a def mooy profité. ci loolu. parce que tey jii Ama Baldé bu réussir woon tey bëri ak Gris Bordeaux ci une minute. def ci carrière am loo xamante ni kenn mosu ko def. Gris Bordeaux mais est-ce que mën na ne mais jàppante taxaw jàppante taxaw déglu ku ne déglu sa morom. baaxul ci Ama Baldé loolu Gris Bordeaux daf ko mën. ok Gris Bordeaux fooram. mi ngi ci jàppante. taxaw seetaan nga ko moom contre Modou mhm. ah, seen jàppante dafa yàgg. taxaw jàppante taxaw. Mhm. te Modou kenn gënu ko doon athlète. kenn gënu ko doon champion. waaw mhm. ah, sóoraale lu bari. waa ta bañ a jël lépp yaakaar ni yaa ko moom làmb ji déedéet jël sa wàll jox Gris Bordeaux wàllam mais ama d'habitude buy bëri noonu lay demee waaw day yaakaar ni combat bi yëpp maa ko moom maa ko war a def maa war a tuus maa war a fecc maa war a xeex maa war a bëri non non non non non yëpp ngay def loolu waaw des fois des fois nga respecter sa adversaire hmm. fekk du dara stratégie la parce que da nga am combat bo xamanteni hmm. combat capital la donc soxla Pikine soxla ko ta dang ko wara gagner ok ah loolu à chaque fois bu Ama balde di dem ci bodo, Gris Bordeaux naka la wara démé non comme ni mu dan démé rek hmm. wa ni mu dan démé boy aliru Ama balde boy, ñi ko antan wul de li guuy gi di wax kérok nan une minute Ama balde, non néna néna ko na ciune cuune antanu ko mais deug la Ama Balde boy, mu fital jaar wuti adversaire moo tax Modou Lo c'est un très grand champion Ah Modou boy, il est le meilleur de sa génération mm-hmm. waaw dafa réussir lu ñu bari réussirul mm-hmm. waaw ci carrière am mm-hmm. ba pare gis nga macha allah roi des arènes bi ni mu yàggee ci loxoom doon ndaanaan la doon champion Ah Modou Modou Modou Modou ndaanaan la ci combat am ak Balde laa ko xamee Ama gëdd fital jaar wut si la nga def deux pas en arrière mais ni ku ko ragal fekk ragaloo ko stratégie la waaw ba pare remise ko remise boo xamante ni loolu moom moo gagné combat bi. Mhm. Gris na la wara a recevoir Ama Balde. wa nim ko ni Gris ni mu recevoir Ama Balde moy mu taxaw deglu mhm. wa parce que giri giri yow tamit mom mom la lay wax légui expérience face à la jeunesse la. Mhm. giri mbeur mu mag la du mbeur mu ndaw Ama Balde mo soxla. han ah, donte giri soxla na parce que giri combat bi il est le combat de sa carrière. wa combat bi nak ci la wara a mën ci lamb waaye nak combat bi nak ci la moo war a mën a yàq carrière ci lu bari parce que tey jii bu ko Ama Baldé daanoon carrière lu bari dina ci yàqu. ok pour man Ama balde mi ngi war a bëri Gris Bordeaux fii. Mm-hmm. ci tànk yi suuf suuf ba ci ndigil li mm-hmm. waaw Ama foofu war na cee mën a am lu ne. Mm-hmm. waaw parce que Ama mën na mën na mën na loolu. waaw bëri ci kaw départ ci suuf tànk yi ba ci kaw. Ama Baldé mën na bëri foofu Gris Bordeaux mais li day dale fii hmm. ba ci kaw ci Gris Bordeaux boo ci bëggee jàppanteek moom bëri moom hmm. dalay sonol surtout ponkal mu toll ni Gris Bordeaux nga ne da nga ko bëgg a dajale takk ko foofu mën na la sonol trop waaw hmm. ah, parce que Ama Baldé combat am bi yëpp yëpp yëpp mi ngi ci premier cinq minutes bi waaw ah, parce que Gris lourd la te Gris du cuune telewul bëri mën naa xeex te xam na ni ñuy gérer combat waaw ah, dafa mëna gérer combat mom Gris mhm. ah, surtout combat bo xamanteni face dañ ko soxlo waaw mhm. ah, moo Ama balde il faut tamit mom tamit benn sant bu respecter mhm. Gris mais bul am dara loy moytu ci Gris buru respecté ko ça ne veut pas dire que ni dang ko ragal wa xaar ba am buntu bu leer wa dogo dem xam nga tay di arbitre mënul souffler rek ah nga ne damay wax xamoo lu giri buru indi xamoo lan ngay fekk ji nga ne arbitre nga arbitre manam euh, euh, maanaam yàbbi soufflé bi rek nga daw attaque mais loolu wóorul wóorul da ngay taxaw déglu. waaw xool liir combat bi. xam ne ki ngay bëreel champion la. ëppoo ko doole. ëppoo ko fit. dàqoo ko xeex. dàqoo ko bëre. waaw moo tax Ama Baldé combat bii daal boo bëggee dégg dëgg. mooy combat bu doy waar la. waaw mais Ama Baldé neen loxo giri Bordeaux diisul. yooyu bu nga déggee. non loolu loolu duma ko dégg na ko laaj Eumeu Sène <laughs> yii non giri ràkkat la ba giri mm. xam nga giri bokk na ci mbër yi dàkk xeex ci làmb ji mm. waa giri du laaw waa du laaw laaw sax mën naa bañ a diis mais guri day jam mm-hmm. pang te bu ci dal nga yëg ko bu ci dal nga ko giri loxo bu diis la yor waa ay ponk rek la fi duma de mm-hmm. lu leer laa la wax mais amaari bëri giri bu gaa yi euh, jël favori bi mooy xeex bi yëpp jox ko Gris Bordeaux ñu ne Ama Baldé est-ce que am na sens ci côté xeex te gis nañ Ama Baldé bu ñu bëree ki nga xamante ni mooy Malick Niang bu ñu ki nga xamante ni mooy Tapha dañ dañoo jëloon xeex bi jox ko ñooñu mais dafa touché ñooñu ba pare daan leen cette fois-ci. ku Ama Baldé ku ci jël sa sa làmb yàqu. Mhm. waaw Ama Baldé mooy booy lu mbër yàgg na ñëw jël favori naan kii bi wa dàq xeex. Mhm. di wa dàq xeex mais Balla gi Gris Bordeaux. Mhm. mais Gris Bordeaux lañ joxoon favori ci xeex bi. Mhm. te bi nu dajee ci Léopold Sédar Senghor Balla Gaye xeex bu metti la xeex ak moom. Mhm. mais Tapha mhm. Balla Gaye. mais tafaatin Tine lañu joxoon favori bi ci xeex bi. mais Tapha mais mais mais Balla Gaye dafa xeex ak moom. xeex bu metti ah. est-ce que favori bi ci xeex bi léegi man mën naa ko gëm non non booy lamb dafa am ay réalité yu ci nekk. comprendre nga dafa am ay réalité Mm-hmm. yee bu ñu naxante quoi waaw lamb dafam ay réalité mm-hmm. Ama balde booy mën na xeex ak ku dul man Ama Baldé bu xeex ak Gris man du bett mm-hmm. waaw parce que moom maanaam jikkoy gaynde moo nekk ci moom pour moom lu taxaw ci kanamam moo la man te boo ko dóoree dina la jéem day jéem a fayu waaw noonu la ni Gris ni Ama Baldé ni ni ni tey jii liñ naan Gris Bordeaux moom mooy favori ci xeex bi Ama balde noonu la nekkee favori ci xeex bi parce que Ama day xeex day bëre waaw kat la bërekat la. waaw mais li ma la mën a wax mooy giri Gris Bordeaux kenn gën ko doon champion ci làmb Gris Bordeaux c'est que Gris moo dem ba ci biir rek changé nekk beneen Gris mais Gris bi nga xamoon 2004. bu bëri woon ak ah Eumeu Sène. Gris bi nga xamoon 2009. ah Gris bi nga xamoon ak ah contre contre Modou Lo bu. athlète hmm. ah Gris boo xamante ni da daan jug ba ci kaw hmm. mooy tëbum boobu mu daan def mais Gris Bordeaux mënatul loolu waaw Gris bi nga xamante ni physiquement da nga ko doon xool xam ni kii dafa taxaw hmm. waaw ndaanaan la dafa fonk lamb ji mais làmb boo commencé bàyyeeku rek après dafay feeñ ñoom ñaar ku si am defet ñoom ñaar ku si am defet ku ci am defet baaxul ci yow baaxul ci yow ah ta euh, ci Gris Bordeaux sax peut-être la gën a bon ah, ah parce que Gris waaw ñëpp ndam la ñuy xaar ci moom parce que moo ko mën a relancer waat. Mm-hmm. moo ko mën a boolewaat ci làmb. Mm-hmm. waaw Ama Balde aussi. Mm-hmm. defet baaxul ci moom booy defet amul ci ku mu baax. surtout combat boo xamante ni sa waay sa dëkk dañ la war a ëmb indi la. soxla ko. defet baaxul ci ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ndam ngay wut te fekk te te foog te defet am defet mënut te ñàkk ñaari ndamuy dugg waaye benn génn waaw ndam li kay bii dina dem Fass wala mu dem Pikine rek da ci indi xeex hmm. ci biir expérience bi dafa bëgg a wan ne ba Ama Baldé man maa la man maa la ëpp doole maa la jiitu ci lam maa la ëpp expérience expérience mën na ci feeñ à cent pour cent hmm. à pour mën na ci feeñ à cent pour cent expérience lay indi tamit ok expérience lay indi ban Ama moo war a ñëw stade ama boo xamante ne parce que gis nañ léeg mooy combat yi nga xamante ne mujj euh, mujjee na ko def si diggante ak Modou Lo dañuy gis cumukaay bi dee bëri ay nit kii di xëpp fii ama du am temps de récupération xam nga du mun a am li nga xamante ne mooy équilibre yooyu est-ce que arrangé na mbër mi. non arrangé wul mbër mi démb rek maa ngi ciy wax ci cumbukaayu Ama Balde ah. Mm. Ama Balde bi war a ñëw nag mooy Ama Balde bi daan ñëw rek. Mm. waaw mooy Ama Balde bi daan ñëw. Mm. waaw ah, parce que ndox du bàyyi yoonam. Mhm. Ama Balde bi daan ñëw rek. Mhm. parce que Ama Balde muy mbër moo xamante ni tey jii des fois du déglu sax consigne mën nga ko conseil conseiller nag. Mhm. mu déglu la mais bu demee leneen lay indi. Ama mu bindoo noonu. mais démb maa ngi koy wax ci biir cumbukaayam ba Ama Balde il faut mu jéem a il faut mu jéem a conscient ci lamb ji. parce que mënoo ànd ak vingt personnes ku ne di la sotti gàllaaj mhm. loolu baaxul sax ci mbër mu mag Ama mhm. Baldé mhm. mbër mu mag la am na expérience ci làmb loolu lépp bokk na ci liy gàllankoor gàllankoor mbër ah bokk na ci liy gàllankoor mbër mm-hmm. boo xoolee Modou loo tey jii boo xoolee boo ñëwee ci cumbukaayam papis rek nga fay fekk mu koy sotti gàllaaj mm-hmm. mais mën na ne ok mais téeméeri butil ku la sotti gàllaaj mais loolu wóorul mm-hmm. loolu dalay déstabiliser sax dalay sonal dalay mujjee fàtte comprendre nga moo tax il faut mu jëlaat matuwaayam xoolaat bu baax a baax a baax euh, staff bi ñu waxtaan jéem a xool ci combat bi yooyu mu bañ leen a dalaata am na solo day ñëw tamit ci beneen combat bu